ba tey ndegam ab jullit dafa war a sàmm ab sawukaayam ba du ca def lu yàlla bëggut ba tey moom kon mu joxe ci pexe moo xam ne jullit bi bu ko mbir moomu xawee lëjal nu mu cay def bokk na ci pexe day bu fekkee ne xelam day dem ci joteeg góor ak jigéen lu bare bari muy néewal ak lekkam tey bari la woor tey tee ay bëtam bañ xool ku mu wërta xool bu fekkee nag moom yàlla dénk na ko soxna muy bari la joteeg soxnaam soosee ndax xelam bañ a nekk ci keneen ndax jigéen ñi daanaka sorewuñu su fajee aajoom ci ka nga xam ne lew na ko rek mën naa am xelam du nekkati ci faj aajo ci keneen koo xam ne lewu ko